commencé.
Ndiassane le 17 6 2015 à 11h tey ñu am mbégte di dalal suñu papa di Abdou Mbaye ñuy waxtaanee dynamique contemporain wu tarixa xaadiriya bu Ndiassane sëñ bi ñu ngi lay nuyu.
ñu ngi lay sant di la nuyu di la fay waaye di fay yaa soxna su baax si nga àndal
di Mariama Coulibaly di soxna Mariama Coulibaly
Eh, sëñ bi dañoo dégg fii ne yow yaay maanaam porte parole lu xalifu Ndiassane bi est-ce que mun nga ñoo wax tuuti ci responsabilité yooyu waaw gannaaw ba ma leen nuyoo sant leen gërëm leen ñaana leen yàlla ci dikk bi ngeen fi dikk danaase ñëw fekk si ma fii ci sama kër di kër boo xamante ni kër ndono la maam yee fi jaaroon dem di dem bàyyi jaar bi di dem mag ñi jaar bi di dem ba mu des man boo déggee porte parole bi mooy dëkk bi dëkku kilifa la dëkku sëriñ la sunu maam Cheikh Abou Mohamed Kounta moo ko sanc ci 1883 nekkoon fekk sama maam du ñuy wax bu naa ma mbaay mu doon conseil nekkoon it géwalam bu mag bi mu demee sama baay nekk fi ak ak i doomam nekk fi di géwél bu mag ci dëkk bi nekk fi conseil nekk fi kilifa bi mu demee sama mag nekk fi ak sëtu Cheikh ba Mouhamed Kounta yi ak seeni doom ak sëtam bi sama mag yi demee may itam ma des fi maa ñi nga xamante ni sëtu Cheikh Abou Mouhamed Kounta lañu ki nekk ci bopp bi tey di àllaaji sëñ Maamu Mamadou Kounta di xalifaam ñaari yoon boo dégg ma ne xalifaam ñaari yoon bàyyam Cheikh Abou Mouhamed Kounta ko jur ñu di ko àllaaji Mamadou Kounta bi mu génnee àdduna moom mooy xalifa baayam di àllaaji Mamadou Kounta baayam génn àdduna ba tey mu nekkaat it xalifa maamam Cheikh Abou Mouhamed Kounta ñu ñaari xalifa boobu doyul yàlla mu nekk it xalifa Cheikh Bounama Kounta maamam nga xamante ni moom moom ci réew mi 1800 dëkk ci dëkk bu ñuy wax Ndang am fa ay doom yu baax doom ji mu mujj am nag Cheikh bu Mohamed moo sanc Ndiassane 1883 doom jooju nag mu jur Alaaji Mamadou Kounta mu jur Alaaji Mambo xilaafa googu ak xilaafa baayam ak xilaafa Cheikh bu Mohamed Kounta gi ñetti ndombay tànk yépp Alaaji Mambo moo ko yoree li tax mu doon xilaafa fële fee bu fekkente ni kunte yi danoo dem ba ki nekk fii moo mag ñi nekk fee dangay daal di boole ñaari xilaafa yi ndax Cheikh bu Mouhamed mi sanc Ndiassane dafa am cër ndànk ba pare nañ moom fii fii ku dul sëtam doo ko moom ku dul doomam doo ko moom mais fee bu fekkante ni ña fa nekk ki nekk fii moo ko mag danga daal di boole xilaafa boobu ak xilaafa bi yore ko yàlla def it mu yor xilaafa baayam ak xilaafa cheikh bu Mohamed ak xilaafa cheikh bu naana tudd mu ñetti xilaafa mu yore ko yàlla def it ci biir yor boobu may itam ma maase ak jamono boobu ma nekk ci wetam di bëj géwëlam di géwël bu mag ci dëkk bi am fi cër itam cër bi itam mu dëgëral ko lool moom mi ngi toog ci xilaafa gi 2006 moom Alaaji Mambo 2006 la toog ci xilaafa gi daal damay jël teg ci wetam moo ma yóbbu yéen ma siyaara ji rasulillah sallallahu alayhi wa sallam man la jëkk a yóbbu yi fépp fu muy demee ñu ànd lépp lu muy wax ma di ko jot li nit ñi ci wàllu wépp moo tax nga wax léegi may porte parole dëkk bi waaye di porte parole waa bi nga xamante ni Kounta yi dañ ci jaar moo indi baat boobu ma toog ci loolu nag di ko ñaanal nag gudd fan ak wér ci loolu nag ci ngeen ñëwee fekk si ma may bëgg lool ci ñëw bi di kontaan lool ci taxawaay bi di sant it soxna Fatimata Coulibaly mi nga àndal Mariama Marème Coulibaly ndax jéego yu muy dox dinañu amal njariñ tey amal ñu ko ëllëg amal ko suñuy sët ba tax na loolu muy dox yal na yàlla suñu borom def mu àggale ko ci jàmm ak salaam yow itam martaba bi nga yore ba tax nga ànd ak moom ñëw fi sama kër yal na yàlla àggale seen xalaat di leen dalal di leen bisimilah di ñaan ci yàlla li ngeen may laaj yàlla boo ci yàlla suñu borom defal benn pakk ba luñ ci bëgg ñu am ko ci.
est-ce que yow fii nga juddoo yow Ndiassane fii laa juddoo sama baay fii la juddoo sama baay mooy caatum baayam ñu tudd ko Cheikh Bou Kounta sama baay buu la tudd baayam bu naama la tudd ki sañ ci Ndiassane Cheikh buu la tudd moom it baayam bu naama la tudd danoo nuroo lépp cheikh bu itam am na doom ju ñuy wax abdourahman abdourahman moomu lan ma tudde man moo ma jàngali waaye moom mi ngi wàcc bu liggéey euh, 1965 la wàcc liggéey ci abdourahman mi ma tudde moo ma tudde boppam moo ma jàngal alxuraan moo ma defal lépp waaw kon fii la sama baay juddoo man fii laa juddoo waaye nag sama maam juddoowul fii mu ngi juddoo ndànga ndànga gi nga xamante ni foofu la Cheikh Bounama dëkk foofu la sama maam juddoo ñu di ko wax Cheikh Bounama Mbaye moom moo tudd Cheikh Bounama Kounta mu jur bu Mbaye bu Mbaye jur ma ma laat
kon yow sa dund yëpp Ndiassane nga ko def lépp aw ma benn jànguma benn métier yi bay rek bay gerte dugub donc ginnaaw loolu jàng alxuraan ginnaaw loolu toog ci wetu sëriñ bi waaye nag li dal doom yi yàlla dogal na dalul sët yi sama doom yëpp ay borom yu métier lañu ñi menuisier lañu ñi menuisier métallique ñi menuisier aluminium ñi chauffeur lañu waaw ñi mécanicien lañu toog ñu ko dañuy dem di ñëw nag di fortaat amuñu benn embauchement itam ci barke rek lañu dund ci barke rek lañu dund weer du dee ba nga am dara mais nag barke dafa gën a foor lu bari ndax borom barke ñu dina jàng ba am ay licence ak i diplôme ba doon doctorat laxasu takku topp borom barke ci loolu la mu nekk dinaa am ñaari at ñetti at du ma dem Dakar ma fi mu ne nga xamante ni parce que wéruma man maa dem fu bari naa tag nag yéen yooyu mais daal maa ngi toog ci barke
dund diine bi fii Ndiassane nan la yokkoo ci at yi
dund gi yokk na bu baax ndaxte 1973 fekk na dëkk bi matul téeméeri buntu kër matul téeméeri buntu kër booba buntu kër yi ma danga koy lim mais fii mu nekk buntu kër yi mat nañu ñetti junniy buntu kër deuxièmement itam booba temps ceeb fi lay ñore pataas fi lay ñore ñam bi fi lay ñore lépp lu nit di lekk ginnaaw jën fi lay ñore ndax dex gi dafay newoon sa dex gi li ko fi indi borom dëkk bi bi mu ñëwee Cheikh Bou Kounta 1960 1960 1883 bi mu fi ñëwee dafa xam ni ñi koy fekk si ay bambara lañu ak bokki naaram ak wolof li ñu xam mooy bay xamuñu géej mu julli ñaan yàlla ngir yàlla suñu borom ba lewatal ko dëkk bi bi mu ñaanee yàlla yàlla suñu borom ba def dex gi toj fii matul 40 mètres soriwul dara dex googu dund na ak ñun juróom-ñetti fukki at ak ñaar diggante 73 74 ci la bekkoor bi ñëw mu xaw wàññitu bi dex gi ñëwee nag ñu di fi béy yooyu yëpp ceeb ak pataas ak ñembeeg sobleeg naanaak lépp lu nit di jëriñoo rek ñu ne fi kenn demul fenn comme mënuñoo dem de yàlla suñu borom ba boole ñu borom baatin mu defal ñu loo xamante ni dootoo dem géej ca ndox mi fi nekk du yàq nit dafa lewet amul xorom amul dara lépp ngi ci ñu nekk ci loolu di ci dund yàlla suñu borom ba def nit ñi di ñëw it di taatan fi barke di ñaanlu si ay yi di fay ruus yi looyu di rox mooy law ci dugg suñuy poos mu di ci faj suñuy aajo jàngoro bariwul dara bariwul loolu jàmm ak salaam yàlla dafa suñu xol yi dëppoo ak yàlla ba lépp loo xamante ni mi ngi ci ñun amuñu loo xamante ni lu ñuy wax waaye suñu xel dal na suñu yaakaar di dëgër ba lépp lu nit di war a jëriñoo rek foofa alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla bu baax a baax
ndax mën nga ñëw méngaleel ziyaara ak gàmmu nu mu doon mel bi nga nekkee xale ak léegi nii
bon loolu bu jëgg bu fekkente ni ci suñu jamono booba ay fukki at ak juróom ñaar fukki at bu musaa de gàmm ñetti fan lay doon boobu courant amul robinet amul goudron amul malien yi dañuy ñëw mais daaw ñu ñëwee nii dañ daan seet askan bu nekk ñu tànn ci juróomi nit ñu ñëw dina war a mat fukki groupe bu ñu ñëwee nañ fi am ñetti fan booba temps booy seet la gën a neex waaye léegi la gën a sakkan boobu bu guddee dañuy fanaane sikkar ba bët set bu ñu xëy dem siyaare ndox mi ku fi indaale woon jàngoro ci jamono boobu boo xëyee boo demee sangu ci dex gi tàng ci yóbbaale mali ak foo ko mën a yóbbu ndox moomu nga yóbbaale muy butéel bi wala muy bidon balaa jeex déwén ndax aajo bu lay dal rek da ngay xel tuuti njar ko naan sangu sa aajo ba faju booba tam loolu moo nekkoon booba mag ñee fi desoon ñu seet si di Lamin Kunta borom étage bi bi nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu Cheikh Sidi Lamine Kunta bi mu demee 73 Alaaji Mamadou Kunta ñëw 73 ba 1976 mu génn àdduna moom nag Alaaji Mamadou nag moo indi suppiku gi bi mu ñëwee moom ci gàmm nga xamante ni bu njëkk jamono yi Cheikh Sidi Lamine Kunta bu autorité yi musaa ñëw dañu xëy ñëw mu ñaanal leen waxtaan ak ñoom ñu dem moom nag bi mu ñëwee toog alaaj moo dëkkante bàyyi xalifa bi dafa yokk yëf yi dafa daal di indi maanaam loolu ñuy def loolu ñuy defal gan maanaam teraanga dana def ay musu yi waxtaan ak ñoom dalal leen daal di yëngu ko bi mu demee itam ki ko fi wóotu di Cheikh Sidi Yaxya Kunta kooku moo tabax jàkka ji di rakkam nit sunna la moom itam bi mu ñëwee yëf yi di gën a yokk fekk na làmp yi am na rajo am na goudron commencé am yëf yi di gën a yokk di gën a neex mali itam nan daan ñëwee mu raw fi léegi ñu ngi ñëw ci avion ñu ngi ñëw ci oto ñu ngi ñëw ci saxaar yëf yi di yokk di yokk ba ci jamono moom mi nga xamante ni mooy àllaaji Mambu Mamadou Kunta remplacé bàyyam Cheikh bu Mohamed Kunta yéef yi gën a yokk ba fii ñu koy waxee nii ñu jàkkaarloo télé di waxtaan musuma am léegi ñu di ko dalale suñu xel te xam ni jamono mi ngi dox bu baax a baax a baax kon siyaara ak gàmmu boole woo doon benn ndax lépp loo xamante ni yonent bi moo tax nga di ko def su yàggee dangay yokk waaw ndax yonent bi loo ko jënd rek day da koy daal di jar ba ëpp ko moo waral toogaay bi nii ak suñu taxawaay ak nii nga xamante ni ñoom Fatimatu Kulubali Mariam Mariama soxna Mariama Kulubali ñu koy def lu am solo la ci ñun lu nu bëgg la ñu di ko ñaanal li mu gën a bëgg ci àdduna yàlla na ko yàlla suñu borom la ndaxte lii ndimbal la ci ñun di ndimbal ci moom avancement ci moom ndax dina ko yóbbu foo xamante ni bëggoon na noo ñëw te mënu ñëw ndax Mali li muy rëy lépp Cheikh Bou Kounta bari fa doole ba fi mu ne am na ñoo xamante ni xamaguñu Ndiassane ba fi mu ne te at mu jot lu xaw a mat ñetti junni ñuy ñëw te bala ñoo fi bala ñoo fay jógee ñu ni suba la kori kooku barke la kooku ñu bëgg a tukki barke rek la barke boobu nag nga xamante ne bi ñu ci dimbali ci fànn bi ak yow itam nga nekk fi def suñu doom yi xam-xam ak suñu sët yi mu doon loo xamante ni ñaari ndimbal yooyu yal na ko yàlla dajale xëpp ko ci yonante bi bu ko xëppee ci yonante bi tam yal na ko yàlla tur ci yéen ñi nga xamante ni yéen ngeen dimbale ci saahir ak baati
ci sa gis-gis yow lan mooy taxawaayu média yi maanaam taskatu xabaar yi pour nit ñi xam dëgg-dëgg tariixa kunti
voilà xam nga dafa am yoo xamante ni dolli la ndax tarixa yépp am solo bu murit am na solo bu tijaan am na solo bu xaajar am na solo lépp am na solo waaye nag bi nga xamante ni moo gën a am solo bi yonent bi laal maa mu bokk ci te Kunta mënoo ko tudd te tuddoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeni mbir dolli ko ne ci façon bu ne mais taskatu xibaar yi gën nañu koo dolli ndax lii ngeen def su ngeen fi jógee fii ba Canada fii ba Amérique fii ba fu ne monde bi yëpp yëg ni lii am na Ndiassane te jëli nañu wax fii te ñu ngi koy teg monde bi di ci jëriñu di ko dégg kooku taskatu xibaar moo ko man ginnaaw bi yàlla suñu borom ba defee ay mbiram kon taskatu xibaar doon na loo xamante ni ñuy dimbale nit ñi di dimbale tarixa bi di dimbale kunta di dimbale itam koo xam ne kii yaakaar na kunta ba nga am kunta
waaw ndax yow mën nga ñëw méngale Ndiassane ni mu meloon bi mu bi nga koy jóg a sos ak yow bi nga nekkee maanaam ndaw ak léegi
bi ma nekkee ndaw waaw dundu Ndiassane nan la meloon
moom laa la waxtaan dund gi neexoon na loolu waaye léegi la gën a neex ndaxte yan ñoo ci soppeeku waaw ndaxte soppiku na ci wàllu wépp ci wàllu ci wàllu dëkkin ndax man bi may gone ma ak sama baay ak sama yaay ci benn néeg la ñu newoon benn néeg kaskat lal bi lal bi bàngoo lañ koy tuddee bàngoo ban la ñu jël palaas teg man man ak sama yaay ak sama papa benn néeg ñuy dem di dem ba bi may am quinze ans bâtiment cinq ba léegi sama papa def ko fi ñuy taal pétrole wala sondeel maa ngi koy wax ba ci démb weeru koor li mu xamoon ci weeru koor bu nu wooree ba ngoon fonde wala laaku ci fay la ñu ndogoo wala cere léegi tubaarkal la doo jël ndox def ko ci ndab teg ko fee pour ngelaw li ëpp fu mu sedd da nga ubbi sa frigidaire génn ndox ba nga génn galaas bon néeg bi ngay fanaan bokkul ak fi ngay dalal gan ndax fi ma leen dalal jamono boobu sama baay mënu faa dalal nit waaye nag barke noonu ñoonu ko ëppale woon ndax amoon nañu ci barke loo xamante ni ñun am nañu ko kii wërsëg la ak barke du benn bon ci biir dolli ko googu nag ak yokk googu bi ñu ñëwee ci jamono bii tubarkalla mbedd yi yaatu na làmp yi leer na lekk yi suppiku na danga daan togge matt léegi gaz ngay togge wala këriñ te yooyu yëpp amul woon kon dolli ko am na bu baax yaatal am na bu baax barke bi itam gën naa gën naa ndax barke xel moo koy leeral bu ko xel leeralee taskatu xibaar wala waxkat wala bindkat biral ko nit ñi ñu xam ne foofu am na barke nit fi barke bu baax a baax a baax
ndax mun nga ñoo wax rapport yi am ci diggante tarixa kunti ak yeneen tarixa yi waaw tarixa yi jamono sunu maam ci Ahmadou Bamba sunu maam ci Abou Mohamed Cheikh Abou Mohamed taawam bu ñuy wax Cheikh al Bekaay moom la jëkk am ci gu- doom bu góor bi mu jógee gànnaar daf ko booleeg ay nit pour mu dem nuyu yi Cheikh Ahmadou Bamba bi nu demee jóge fi wàcc njaareem sëñ Tuubaa yebal ay nit ñu leen gàttandu gaaru njaareem te Cheikh bu Kunta yëgalu ko ko nii samay doom ni ñëw pour seet si la mais baatin man nga bëgg a wax baatin ni muy demee ci ñaari nit yàlla ñooñu itam sëñ Tuubaa ni leen bu ngeen demee ca gaaru njaareem nii la lu mel ak nii ak nii ak nii ak nii doomi Cheikh bu Kunta la ñu njaasaan la ñu jógee ci man la ñu jëm si ñoom itam bi ñu wàccee ci gaar bi rek ñu daal di xool mandarga yi Serigne Touba joxe ñu xam ne ñii la ñu ñëw ñoom ñoom man leen ah sa baay Serigne Touba moo ñu yebal de ñaa ngi ñëw gasanu si la daal leen jox ay fas yu war ñu ci Touba bi ñu demee Serigne Touba dalal leen boobu itam Cheikh bu Kunta li mu bëggoon doomam jooju di Cheikh Albekaay Serigne Touba xam ne ki nu Cheikh muy Cheikh al Bekaay li mu jële gànnaar ci xam-xam pour sëñ Touba natt ko ba xam fan la toll sëñ Touba dalal leen daal di koy jël dugal moom ci ne ñetti fan xeetu xam-xam bu mu ko laaj rek mu wax ko ca ba wax ko ca loo xamante ni ëpp na njort sëñ Touba ba ñetti fan yi mat mu jàpp ci loxo bi génn ak moom ñu ko seexal bekaay mu ni cell mu ko seexal bekaay mu ni cell mu ko seexal bekaay ki mu àndal ñu di ko wax buuna jóg daal di jóg ni bekaay sa bàyyi ngi lay woo sëñ Tuubaa di la woo di la woo wuy woo ko mu ni li muy may wooyee moo gën a foor ci martaba yàlla seex woote bu njëkk bi yëguma seex sama yaram ñaareelu woote bi yëguma seex sama yaram ñetteelu woote bi laa gis sëñ Tuubaa doon ak leer mu ànd sama bay bi dugg sama yaram moo tax ma wuy ko sëñ Tuubaa moo ko njëkk a woy Cheikh kooku nag mooy taawu Cheikh bu Mouhamed Kounta kon ñoom jaxasoo woon nañu natt na ko ci xam-xam yépp daal di koy woyal tagg ko jox ko ni ko ba ne jox sa bàyyi bi nga xamante ni kooku dem na itam ñi ko fi wóotu di Cheikh Sidi Lamine Kounta moom itam dafa jaxasoo woon ak Touba jaxasoo noo Tiwaawan jigéenam bu baax bàjjen Mariam moom la suñ Babacar si yore woon moo suñu woyu jur soxna astukan ñuy tudde Kaolack Njaasaan ci tu ci Tiwaawan jaxasoo amoon na foofu bu baax a baax a baax daan demlante di fekkalante suñ Touba am maam Alaaji Maalik daana jóge Tiwaawan di ñëw di seet si Cheikh Bou Kounta amoon na taalibe boo xamante ni tam marsa Tiwaawan la nekkoon ñu di foofu Moussa Sissoko bu xëyee balaa lal day ñëw nuyu Cheikh Bou Kounta seer ko door a dem lal marsa Tiwaawan di ko def ba mu yàgg Cheikh Bou Kounta ne ko diggante Tiwaawan ak fii soriwul sori na waaye nag kenn du am ku toll ni sëñ Alaaji Maalik di ñëw di ma seer si di ko forom boo xëyatee del dem ci moom boo ko siyaaree siyaar na ma lal bisu àjjuma nga ñëw siyaar si ma dellu di ko def di ko def ba mu yàgg mama lay Maalik ni ko bu àjjuma boo demee ci Cheikh Bou Kounta ne ko mu ñaanal ma comme ni ma lay ñaanalee na may ñaanalee noonu ndax ñun ñaar kenn ku ne war naa ñaanal sa morom mu ñëw ni ko ah sëñ bi day mais bu mu ñëwee naa la wax ni la nga ñaanal ko. mu ne waaw boo demee na nga tari faatiya ak wala daal yi na man ko ceeb bu ko daal di àddiyee jot mu dellu fanaan bët set dem siyaar moom Alaaji Maalik bi mu ko siyaaree laaj ko ñu ko wax ma sama yóbbatu mun waaw nee ma ñaanal la mun ko kon nag bisimilah mu moom Alaaji Maalik tàllal loxo bi Moussa Jaxate tàllal loxo bi mu ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin daal di bëgg a dugg beneen saar mun ko yemal foofu foofu la la yem loolu bi mu la ko wax maa ngi toog waaw kon nag li ma Cheikh Bou Kounta wax ci yow lu ko ëpp ngi ci yow boobu daa jeexal fàtte bëgg a tarif ko mun ko yemal foofu li mu la ko wax maa ngi koy dégg kon ñu jaxase woon noonu ki nga xamante ni moo fa nekk ginnaaw bi suñu Abdoulaat moom it da daan ñëw njaataan bu baax am na benn taatu bénc ne bu nekk fee foofu la daan yàlla dafa amoon soxna am na fi doom doom jee la mag fopp te di wax may moor ndey ndeyam fii la dëkk bu musaan toog foofu sama turandoo sëñ Abdourahmane Kounta doomu Cheikh Bou Kounta daana ko fa fekk tooga moom mun daa Abdou boo mu soxlaatee woo ma ma ñëw man sa rakk la mun ko déedéet waaye nag gan nga te yàlla dafa wax ne gan daf koy teral dëkk sa dëkku bàyyi la waaye nag boo fi ñëwee man maa la war a fekk si moom sëñ Abdoulaye moom amoon na fi soxna sëñ Saliou mi nga xam moo fi jógee barki démb ak kii fi jógee moom it barki démb 2006 la ñu jóge ñoom ñaar 2006 man xalifa bi doomam gi ñuy wax Abidine ak doomam gi ñuy wax maam xalifa ñoo ànd wuti Touba te ñu ngi jógee Ndiassane 5 heures du matin man Abdou Baye. man ànd xalifa bi Cheikh Bou Kounta ak ñetti doomam ñoo Tuubaa ñu dem jawal ci raw du maam Cheikh Ahmadou Bamba di siyaar sëñ Saliou Mbàkke yónni ku ñu wax sëñ Xaadim Mbàkke doomu sëñ Modou Moustapha asa ambassadeur la woon danga boo da nga ne sëñ bi de yëg naa ñoom Tuubaa la waaye dama bëgg su génnee ñu yendoo ma sëñ Xaadim ñu wax ko ko nga damaa ñëw siyaar sama baay bu ma génn damay dem ah ñu siyaar mu ne am du noonu nga ki la ni yendul de yàlla moom benn ngeen kenn du gis waaye comme ñëw nga siyaar sa baay nga génn sa rakk ne la yendu ak man nga yendoo moom ñu daal di génn seen xaadim ànd ak ñun yóbbu ñu ci benn bâtiment bu am solo keroog yàlla def na bi ñu di dindee oto bi satala gi ñu yoon ak ci jaada bi pour yóbbu ko ci dalukaay bi dañ ko dellu siwaat ci oto bi te fekk na ñu yéemu sax lépp nga ko ñu dalal ñu ñu stuut ñu ñu teraanga yu yéemu sax yu doy waar yu kenn mënta wax yu bare bare bare bare bare bare bare ñu jëfandikoo di jëfandikoo ba mu yàgg seen Saliou Mbacke jóg ñëw bu mu ñëw mi ngi yor kurus ak kaamil bi mu ñëwee ba jub sëñ bi lu xaw a mat vingt mètres teg dàll yi teg kaamil bi teg kurus bi sëñ bi daal di jóg kar ko ñun ñu ñoom ñaar mu toog mu sëñ bi na nga dem mun ko maa ngi ko teg anumaan jaasa mun ko mun ko nga sama baay lay ku fonkoon sa baay la tuddee na ko doom sax waaw xam naa loolu bu baax a baax mu ne ah sa ngan gi ngan gu rëy la ci man ah ay na nga xam ni de sëñ Tuubaa wutal na lu ne fàggu na lu lépp waaye lu mel nii fii rek lañ ko mën a amee muy jaataar kontaan naa loolu bëgg naa loolu. maa ngi lay wax ni la nag foo ma dégg ma yendu fa fu dul xel ko bu kër ga Ndiassane lay doon du ma yendu fa bëgg naa itam nga nangul ma lenn. fii ba fukki at ci kanam at mu jot tabaski suukaru koor lay def ci gàmmu lépp maa koy def nga nangul ma ko fukki at ci kanam sëñ bi ni ko nangul naa la loolu ñu fasante loolu mu naa li ma bëgg a wax nag kii ma àndal sama doom sama géwël it mooy wax li may wax keroog waxtaan naa fa loolu waxtaan boobu ñu ma waxtaan sëñ Saaliwu nii yow nag leen rek laa lay wax képp ku yaakaar sëñ Tuuba nekk ci wetu Njaasaan ak li ko wër na yem na yem Njaasaan lépp la mu ne am na dëkk bu nekk foofu soriwul Njaasaan dara ñu di ko wax Moodu jiite mooy borom dëkk ba muy jiite ji mun ko mun naa ñëw fii sëñ Tuuba ne ko na nga mel ak Njaasaan nu mu nu mu toll mun ko Njaasaan ak fi ma dëkk de mu ngi mel ni borom kër gi jóg di du di dem wala ko soriwul Njaasaan mu ne kon na del yam foofee bis bu màggal sëñ Tuubaa jotee ngay yem ñu màggal ci Rasulullah ànd boobu yàlla def sëñ bi ñëw at bu jot sëriñ Saliou Touré loolee sëriñ Saliou waxoon sëriñ Saliou Touré moo ko indi di ko indi di ko indi di ko indi di ko indi di ko indi ba 2006 fukki at yi mat Saliou Touré ñëw ah sëñ bi de nee na ren la fukki at fukki at yi mu waxoon na yow ren lañ mag nee na nga dugal ko yeneen fukki at muy tubarkalla tubarkalla tubarkalla mu ne ah ren la man mu ne ah tubarkalla tubarkalla tubarkalla néewul waaw néewul amul néewul daal maa ngi gis nga tubarkalla am jooyee ñoom ñaar 2006 boobu la ñu gën a dund ñoom ñaar 2006 boobu ci la ñu gën a dund.
kooku ban xalif la woon Serigne Saliou Mbacké.
te ban xalif moo ne Cheikh Bou Kounta Cheikh Bou Kounta moo gën a dem di 2006 alal maam mu ngi toog Cheikh Bou Kounta moomu bàyyam lañ ko tudde bàyyam dafa génn àdduna 1914 le 13 juillet ci la bàyyam génn àdduna di bisu talaata àllarba alxames àjjuma moom moo judd ñu tuddee ko ko moom moo maase Sëñ Saliou Mbacke jamono ñoo defante ñoom ñoom ñaar loolu démb si si la ñu gën a
fii lu ñu seetlu mooy bu gàmmu amee comme yeneen tarixa yi aussi dañuy gis état bi ñëw seen teewaay lan la
teewaay bi taral ci parti la taral ci parti ndaxte fii dëkk bu ne ak la fa ne ci 1914 1914 booba gouvernement français dafa wax ni sëriñ si dañuy solal nit ñi di leen liggéeyloo def leen ay jàmm te nit ñaa ngi bugg a dee ci guerre bi dégg gi metti na léegi nag dañuy seet bu fekkente ni xam nañu wala ñu man dinañu fexe ba guerre bi jeex ndax ku bëgg kilifteen wala ku bëgg président ñi ñee tax mais bu nit ñi jeexee loo loo doyati nit ñi loo doyati président daal di jël Touba kenn jël Tivaouane kenn jël Ndiassane kenn jël fenn kër gu nekk ñu jël fa kenn doom ju mag jël njaasaan ki nu jël yàlla suñu borom ba def ci coobareem ñu dem des fa ñoom ñëpp ci guerre ba la def kenn doo nga ci ñëw ku wax ci Maxtaar doomu Cheikh Bou Kounta la moom jël ci waat na baa mi soxna am fii doom nga xam ne loolu am nañu daal daa ñu si nag am na lu mu xam mais ñi nga xam ne ñoo fa des it kooku mbirum yàlla la jihaad la dindi buubu njaam gi la defaraat la ki ñëwit am na lu mu leen won am na lu mu leen junj bi nga xamante ni ñëw na moom ci maxtaan moom boo génnee ci penc mi këram moo féete nii ay sëtam ñoo fa nekk yàlla sunu borom ba def loolu di dem di dem di dem ba événement yi nga xamante ni bi mu amee parce que gàmmu dañ ko doon def yàgg na 1883 la se bi seex bu sanc Ndiassane rek la ko commencé boobu bu nu ñëwee dañ toog kër sëriñ si di jeex seen xol yi di jeex seen xalaat ak seen i bëgg-bëgg nga xam fu mu toll yàlla ak lu nu man ak lu nu mënu di seet nit ñi fu nu dëkk ak fu nu dëkkul ku war a doon kilifa ak ku war a doon kilifa mais bi ñu ñëwee Ndiassane laaj Cheikh Bou Kounta Cheikh Bou Kounta dëleen ni ñun ay gan lañu ñu ngi jóge Xayrawaan jaar Maroc jaar Mauritanie ñëw fii ay gan lañu dañ dañuy dellu nekkuñu ñoo xamante ne dañ fi dëkk mais ci biir loolu yëg nañu nit ñi am na lu ne ci ñoom yoo xa- loo xamante ni bu tasaaroo jàmm dina am ci réewu France occidental yépp ñu ñëw nag di fekk seeni jataay am na ay photo sax yu ma ci yore man di fekk seeni jataay di fekk seeni wax di fekk seeni liggéey ba fii ñu toll nga xamante ni jamono bi yokkoo ci wàllu ci wàllu média ci wàllu journal ci wàllu wépp ñuy ñëw di taataan ci barke boobu ñëw di taataan ci nag xalaat yooyu ak xel yooyu di ci jëfandikoo ci seen politique ak seen gouvernement moo waral seen ñëw
mais seen teewaay du ñu andi teraanga ah kay seen teraanga bu baax ñëw furu dem rek ñu ko def teraanga bu ne ba ren teraanga bi ñu def from même pénc mi dal boobu benn ministre bu ñu wax Omar Youm moo ko engagé kenn sosu ko moo xam ni jaadu na rafet na jekk na pour mu defar fii mu maas ak jamono kër bi nga xamante ni tam ku toog ci xilaaf war ko moom état bi jël na engagement boobu fekkoon na moom président boobu nga xamante mooy Macky jël na ay engagement yu bari boobu doon na ko président lamp yi jóge ci télé bi ñëw fii moo ko def ci pal moo ko def ci poosam du état sax ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen boole yi ci wàllu santé ci wàllu sécurité ak ci wàllu ndimbalu bépp ndimbal bu nit di jëriñoo rek état bi ñu koy def léegi su ma laajoon yow yan mooy say mébét dëgg dëgg dëgg loo ma wax sama mébét sama bëgg-bëgg waaw
ah xanaa sanc yi ñu àggale sanc yi ñu sanc yëpp sumb ñu àggale buñ ko àggalee sunu xel dina dal sunu yaakaar dina dëgg te nañ leen sant waaw moom lañ wax it nee nañu balaa six mois ci kanam nañ ko àggale sama xalaat yëpp loolu la ginnaaw bi ma ñaanee yàlla suñu borom ba may xalifa bi gudd fan ak wér may ko ñu koy jàppale ak ñi demee ni ñëwee ndaxte lii bu lawee rek ndimbal dina am beneen bu bàyyi ko feneen foo xamante ne xamuñu ko ndax yi day yokk li wax ni day yokk ndax sunu jamono bi ñuy gone soo amee leetar bu ko bind dangay xaar ba école tëj xale yu jógee Dakar école tëj ñu ñëw fi seet si seen mbokk bu ñu ñëwee ñu ni bindal leetar wala benn dong moo fi newoon nekk kër gu mag moo fi mën a bind leetar léegi nag néeg bi nga toog sa doom ngay woo wala sa sët ngay woo mu bind la leetar wala mu jàngal la leetar te loolu lépp avancement la boo xamante ni jamono la topp kon loolu ñu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax vraiment.
sa bëgg-bëgg pour Ndiassane ak say doom léegi loo ma ci wax liggéey bu dolli liggéey ma xale yi am na lu yëngu xale yi liggéey bu nu liggéeyee rek parce que kër gu ne bu fa ñaar liggéeyee rek mu neex nga xam nga kër gu toll nii kenn liggéeyu fi di fay weer metti na hmm? sama kër kenn nekk fi di liggéey di fay weer bu fekkee ne kër gu nekk nag ñaari nit dañ fay liggéey di fayu ah coono yu bare bare bare bare bare dina tegg ko gëm yàlla bi dina gën a dëgër waaw boo déggee da ngay nelaw sa xel dafa dal xel mu dal li koy indi mooy wér ak lekk bu suur nga daal di mën a jaamu yàlla mën a nelaw sa xel mën a dal
su ma la waxee tey lan moo la gën a neex ci sa adduna yëpp loo ma wax li ma gën a neex xanaa dëkk Njaasaan bi ma dëkk Njaasaan hmm? bokk ci njabootu Cheikh Bou Kounta doon li ma doon itam te yàlla moo ma ko teg mooy doomi géwël di magum géwël loolu ma gën a neex
bu la gën a naqare li ma gën a naqari mooy def ma lu ma mënta faj ak waxal ma lu sama xel xalaat la
looy jeexale li may jeexale ginnaaw ba ma sant yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant soxna
Mariama Mariama Koulibaly mii di la sant yow monsieur Faye seen teewaay ak seen taxawaay cant gu wér di leen ñaanal lii ngeen xamante ni moom ngeen dugg yàlla ngeen ci am ndam ñu am ci ndam yàlla defal ñu ci jàmm fa ngeen bëgg mu àgg fa yàlla na ko yàlla suñu borom mu àggale ci barke Seydina bi sallallahu alayhi wa sallam borom del bu weex bi soxna Mariama mii ñi nga xamante noonu la deram weexe ci biir yi bokkam yàlla leen sut martaba ngir li nga xamante moom la ko yàlla suñu borom nattoo mu di ko def ci defin bu am solo ànd ko yow loolu daal ginnaaw yàlla loolu lañ ko jaay sant yàlla bu baax